Perfect body by Shumimi. Soyez bien dans votre peau. rêvez d'avoir une forme gracieuse, des rondeurs généreuses et bien ou tout simplement vous faire remarquer par une silhouette gracile et plus ferme, alors une seule et unique adresse s'impose. Perfect Body by C'est la solution à tous vos problèmes d'esthétique corporelle, gains ou perte de poids en 10 jours seulement. Grâce à sa gamme de produits variés, de très haute qualité, agissant en profondeur Nous sommes à Pikine rue 10 et près de Auchan Mariste. Téléphone 77 142 69 ou retrouvez-nous sur notre page Insta. Perfect Body by Soyez bien dans votre peau. dolli ma indi na meew bu bees meew ratt local si emballage bu yees neex jëfandikoo te yomb bu mag bi 600 rekk lay jar bu ndaw bi 300 kese waaw waaw ak 600 rek nga am sa meewu rat piir daw leen gaaw wuti ko ci seen boutique yi wala ci seen supermarché yi Dolima baax ci man baax ci sama réew booba li ngeen bëggoon. Hmm. am ngeen ko. sant yàlla. muy yow. di Madiaga. Hmm, oui. waaw yaakaar naa ni kuy xool ku bon rek. ak ku dëgër xool. bu leen gisee da leen a war a jàpp. ak yow di nga bokk. Sangomar li ngeen bëggoon def ngeen ko may ko Delia. waaw ah, ba tey jii mama yi may wax ak yow. Hmm. dem na lune de miel. et j'en suis yow xam nga bu baax ne. oui. comme mën na ñëwaat. comme mën na bañ ñëwaat waaye nag moom moo dëgër bopp rek gis nga àdduna bi lu waay def ci lu bon yaakaar ne da rëcc juum nga sacrifier doomu jàmbur ñaata famille la boot oh, mais yow ñaata famille la Sangomar téye écoute oui ma toi tu jaloux xam nga jalousie moo la dal feebar la ci nit yow soroon xaritu Sangomar mi ngay wax mu takk jabar danga nga war a ñëw ci man mii nga xamante ne jël na sama doom nga félicité ma goro bi di man ma j'ai pas terminé et c'est pas ça na nga xam ne nag baron fay ngay waxal li ma ci teg moo di lii am am na bu pare te mënoo ci dara mën naa ci dara loo ci mën moo tax ma ñëw fii ah bon dis-moi fan la Sangomar nekk rab boobu topp Delia bu dee dégg taateen ba oui ma bu dee géro ma xam bu dee il serpent ma xam ndax xëy na na xamoo fi ma bokk man la sëtu dabi méccur Marème Niankoli la oh, oh, sëtu oh, Marème Niankoli du teg faaku mbaag dabi laisse-moi rigoler su ma la waxee naa tàggale Delia ak rab bi ah, ah. war nga maa gëm tu en train de perdre ton temps jeune homme Sangomar c'est le power le pouvoir la puissance Sangomar mooy doole comprendre nga li ma wax il fait nuit je ne suis pas un homme de l'ombre ciao dinaa la woon li ma Sangomar jaral man yenu naa yéen bi Famille, tu me guettes, il y a des mamies. Chérie. daw mënoon nga xool sa xaar dem doy loo nga li fi ne

ci yàlla même wayul day nar naa tuuru day xalaatuma yàlla waaye Sangomar xale bu ndaw àddunaam nar a yàqu ni te nag mënuma ci dara ndax nag ku sañta bañ sañ nangu xanaa ñoom yaakaar rek ne li ñu foog du am yàlla baax na yaa tax ma xam ni neex ci ma gër yaa tee mbaar merci beaucoup Gabi merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup tu sais elle c'est ma princesse lu ma am ci àdduna moo ma ko gënal. dëgg xol dafa cher trop ci doomu aadama. dëgg la te moom mooy neexal sama xol mooy féexal sama xol. dëgg képp ku mu bëgg mhm. dama lay bëgg. te daf laa bëggul lool. ba tax na dinaa la jàppale. incha allah en rapport. Mhm. ak maison de production yu nekk fii. incha allah comme ay Prince Art Ibou Ndour. dinaa la boole ak moom. mooy ci war yëpp dinaa ko def. Mhm. nga génne CD 18 morceaux pas single only. incha je suis fier de toi. incha allah merci beaucoup merci jeune frère. merci beaucoup grand. allez jërëjëf a bëri a yaa ngi bëgg a bëri maa ngi commencé de toi. merci beaucoup. merci beaucoup. c'est gentil. merci la maison là je l'ai oh, <laughs> xam nga la may fay. nga sëyal ma. kii li mu woy neex na mais boo déggee la muy wax moo am solo la muy wax déglu ko bu baax a baax a baax je vais te visiter la maison. bu fekkee neex na la ñu bàyyi ndakaaru embouteillage yi pollution bi ñëw dëkk fii. Ah, ça te va mon cœur ñëw ñëw non non non dangay boot sama ginnaaw ma naan la àgg na ñu nga naan ma déedéet. <laughs> déedéet waaw non non déedéet waxuma boot nii ngay def sa jëbi rek ngay def nii sa jëbi ngay def nii àgg naa ñu déedéet xanaa foo xama foofu xale yooyu. foofu ma ñoom da ngay foo de àgg nañu déedéet da nga koy def tegal. ñëwal waxal àgg nañu. àgg nañu. déedéet. yegg nañu. déedéet. yegg nañu. déedéet. David doxe nga guddi kéemaan yaakaara ma fi indi ndax yitte bii ma yëkkati ma ñëw fi waxtu wi daf ma ñor lool donte da doon taw walla muy ngelaw walla mu naaj mënuma woon bañ a ñëw tey si yow ndax yaakaara ma fi indi sama mbirum xarit la nag ndax dafa takk Delia muy ndaw su doy ànd ak faru rab bu doy jamono yi may wax ak yow dem nañ lune de miel guddik tey gi lu nekk mën na cee am te su boobaa ñun ay xaritam ñooy ñàq ma bëggoon ak xam-xam bi la yàlla may doonte da ngay dëpp xelu sàngomaar mu génn ci say boobu ñibbisiwaat ci guddi gi nga defal ñu ko am nañ ci yow yaakaar li ngay wax yépp mu ngi nii ma jàkkaarloog ci seetu bi amul dara lu ma ci rëcc dina doy waar lool nag ndax sa xarit bii di Sangomar sori na lool ci ndaw sumiy bëgganteel muy Daliya te Daliya mii dana jafe lool nga taqali ko rab bi ndax kuyu jinne la pour nga séparer leen luy jafe lay doon xanaa rab bi dee ñàkk ba kanam mooy tax separation am kéemaan na rab bi dee donte alal la walla doole jaral na ma ko lu mu laaj dinañ ko ci def na rab bi dee maam dey sikku wut ne am na lu mu fi bàyyi woon bàyyi jël ci ba doyal daal di ñu ci tibbal ñun ñu aakimoo ko man Serigne Modou boroom kemaan ku ma xamul dégg na man naa laa ngemb dooleel la jox la ay tëpp tëppal ba nga doyal nekk sa gannaaw wër la nga xeex ak rab bi ci gént xeex bi dana yàgg lool te metti nag jëlal li ne ko jàkk te bu raf loo ci gis nga wax ma kii man la sama bopp laa gis ci biir waaye silmaxa laa gis dama ñàkk samay bat lii lu mu wundu wax na boppam gis nga rab bii mën ngaa jëflante ak moom ba rey waaye nag ah da mooy li lii laa def. Ah. dama xam ne fii yëpp àll la. waaw. mais fan nga lijjantee lekk bi nii. déet xam nga man damay préparer lépp en conséquence. mais franchement tey laa woo. sama xarit bu yàgg la. dama ko woo téléphone ne ko damay def lune de miel mu ne maa des reer bi te xam nga kuy méchoui wala ngay dibi waxuma Dakar de Sénégal Uba moo la ko dàq. Hmm? muy bu poulet bi muy bu xar bi muy bu pigeon yi. gis nga accompagnement yi mu àndal. moo def lii lépp d' accord. xam nga mu lay na boqalee jaw. xet bi rek su la duggee rek. nga bi xëy ma ana ndawal li ana bëgg ndawal li. Ah. da bëgg yàq. ma bëgg a ah. ah. <laughs> mais wuyu ma. am na lu dàq bépp bépp wuyu bàyyi li ngay def. may ñam. boo ñamee ma ñam. <laughs> boo ñamee ñam. loo ñam ma ñam. c'est trop bon. ok nañ dugg ci duus bi ma sang la ba nga set waaw am naa ci droit sama jabar nga dama ci am teyaaba nga sang ma ba ma set ñu ñu lekk ba suur dem ci jardin bi doxantu ba digérer. tëdd ci kaw lal bi ma maase la maase la ba sa yaram bàyyi niin bët ma defar ba mu baax yow Sangomar yow est-ce que tu es normal yow Sangomar lan la avant ñu ñëw fi ba léegi wala danga maa xamee mbokk danga maa xamee moo tax nga takk ma looy wax nii mais si li ma wax yaa ngi koy dégg bu baax Sangomar boo ko sexe rek nga may wax le sexe fait partie du mariage. mais je sais mais mën nañ profiter aussi li ñu dem yéen bi quand même mën nañ dem visiter désert bi dem visiter chameau yi dem xaw ma fu mu mënti doon ñu dem xool lac bi wala lu mu mënti doon lu ñu wax rek sexe rek mooy eh sama jabar nga bul ma waxati xemem je ne suis pas n'importe qui je ne suis pas du tout malade je ne suis pas un obsédé sexe moo gën a yomb bu fekkoon sexe nu ma la takk mën naa ko am partout dans le monde. j'ai les moyens nga may wax sexe je t'ai épousé par amour andi la fii ba pare tu te permets nga ma yuuxu for what pour lan nga ma yuuxu le sexe encore une fois fait partie du mariage quand même c'est quoi cette histoire c'est quoi ça Madiaga tonton dama lay yëgal rek benn décision boo xam ne jël naa ko ci Sangomar donc moo tax ma indi la fii pour ñu waxtaan si. Dabi je croyais que ni boo ma woowee di ma wax waxu Sangomar danga nga may annoncer nouvelle deewam wala dofam Sangomar dëgër bopp gi ci moom ak wowle gi ci moom yaay xaritam gën a jege gën a xam war nga xam ni du neen. te lañ ma ca waxoon ma nag yow yaa toog ma toog ñu wax ñu ko amul pexe. kay ci loo yëgul tonton tal naa sama oto seeti borom xam-xam bu mag mu xamal ne ma ne rab yi deli yaa àndal faw mu dee ngir sangomar mën a am jàmm sëy boobu mën a taxaw te kenn du rey rab woowu ku dul man dabi te jël naa décision bi. <laughs> yow dab yi rey rab bi bien sûr ah, Dieu. Damani. lenn dong laay xaar et j'espère que ça va se réaliser que sama téléphone bi sonné sànq ba léegi moom lay xaar pour qu'on m'annonce une nouvelle et laquelle nouvelle xam nga Sangomar ak Delia biig la woon seen lune de miel alors mais xaar nag ñu wax mu téléphone que Sangomar dee na wala dof na. xoolal dana xam ne man duma moromam xaj ma ci moom man. bul gëm ay supposition yëfi rab nga ma nekk di wax ni rab jinne dafa am rab am mala am être humain am te ku nekk ak la yàlla jox la. même bu fekkee ni ñun ay être humain ñun la yàlla gën a bëgg aussi am nañu xam-xam mais dafa am fu mu yem fan nga mës a gis ci adduna nit sàkkantuma la ak yow buy ray rab <laughs> yow da am xam-xam buy ray rab buy amuma ko waaye dëkk bi ñu nekk am nay boroom xam-xam mais ki ma seeti dina ma ngemb dina ma bàq te dinaa rey rab boobu te gëm nga ko si ba ci benn inconvénient rek a ci am mooy damaa nar ñàkk sama bët bu ma rey rab mais Sangomar jaral na ma ko ndax lay gis nekkul ci bët mi ngi ci biir xol te Sangomar je le porte dans mon cœur. il est temps ñu nag euh, woote réunion ci nu mu gën a gaawee. urgence. expert auto. waaw rouge. CCBM. Mhm. ña fa nekk ñëpp ñu convoqué leen leen ñu toog. tous les travailleurs booy rewoon yi indiscipliné ne di def lu leen neex. ñu xamal ni leen ñun seeni bàyyi nañu. daañu leen woon ni mag mu ci nekk am na ñeleju yu mu décédé di ay ñeleju jinn nag. boo nekkee ci combat bu metti bu bëri ay ndëgg sërëx bëri ay galgal yàlla suturaal la ba nga am ci ndam ndam bu rëy. non dafa jot na grand nga kañu wane sa bopp jaayu tuuti mais grand il est temps nag ñu reew ba dof quoi. man je suis cool je ne suis pas indiscipliné man. non grand s'il te plaît non reewal tuuti quoi parce que il est temps grand nga indiscipliné. peut-être oui. oui. oui peut-être. oui mais je suis dangereux. <laughs> le baron oui. <laughs> Sangomar mënul sëy keneen Delia warul mën a nangu ndogal gi bañ a am jëkkër yow mënoo toog nga bañ a def loolu nga garder say bët am sa avenir devant toi. tàggooma la nag dama la doon yëgal rekk xëy na tey laa lay mujjee gis ci ay bët merci je ne comprends Dabi defoon naa ni xarit amatul ci réew mi xarit dëgg nga tonton gor moom na boppam ci ba mu waxagul waaye bu xasee ba joxe kàddoom moomatul boppam Sangomar jox na kàddoom waaye juru Delia kàdd googu warul deñ te duma seetaan mu deñ ngor ak kaddu gu ñu joxe doomu aadama daf ko war a fonk kàddu gi ju deñ dañ koy jëfe ñaar fukki at ak lu topp ndekete xaw ma kan mooy sama baay bu nekkee xam nga sama baay fu mu dëkk nga wax ma ko ma dem seeti sama baay ndax j'ai le droit de savoir gis nga du bon moo tax ma nëbb la ko mais sa baay du référence tey ku teg alal teg doom alal ji lay jël toppatowul jabar toppatowul doom loolu yépp mën na nekk mais bul fàtte doom dafa soxla amul partenaire baayam bu nekkee xam nga fu mu nekk encore une fois nga wax ma ko ma dem seeti sama baay malgré tout sama yaay nga te sama yaay ngay musa doom danga maa muulu nag rëbb ma te loolu nga ma wax yegsi na ci man sàngumaar gi ma bëggoon bëgg ko ba tey te moom lay mës bëgg ci sama àdduna takk na beneen jabar bàyyi ma yaay booy xam ni jànq la elle est vierge te virginité nañu soxla Sangomar nag sacrifice bi mu soxla am nañ ko ordre kii moo mën a sëy ak baron eh yaa allahu yaa rahmaanu yaa rahim yaa malikul xuddus yaa jabaar yàlla maa ngi tàllal sama loxo di la ñaan yàlla maa ngi lay ñaan ci sa yërmande nga ma jéggal yaa allahu sama doom moom moo xaj ci man mais man xajuma ci moom yaa allahu man maa xaj ci yow waaye yow xajoo ci man maa ngi lay ñaan ci sa yërmande gu yaatu ci barke arrahmaani rahim yàlla nga ma baal jéggal ma te jéggal sama doom te yàlla nga defar aldunaam defal ko njabootu mboolem jullit yépp ci barke seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam allahuma salli ala seydina yow danga dof wala lan moo la dal hmm? xam nga sa day lan lay daj sa bàyyi li muy daj boo ko xamoon doo bajantu sa bàyyi lu ne lay daj dafa dox ba dàll yi dagg yow nga màgg rafet jogo ma nekk añoo da lay minti milliardaire soxla la ni da jël comme jabar ngay dof doflu hmm? xam nga lu ma bëgg nga xam kii dugg ci yow di fay la borom du ku ndaw yéen amu leen dara tous yoru leen ko bu la takkee nga tekki sa ndey tekki sa baay tekki say mbokk tekki allah waaw que sa soit la dernière fois nga ne ma papa ñun ñu bëgg la gëmat ngay ano bu tooy xepp nga ne ma papa xanaa danga soxol bu ma waxati papa dégg nga ne man sama papa su ma sañoon lépp lu mu bëgg suba bu ngoon ma defal ko ko ndax man gisuma sama yaay gisuma mag gisuma kenn moom rek laa am waaye c'est juste que damaa bëgg mu bàyyi ma rek ma terminer sama jàng am ay diplôme man xale laa. waaye yow mer nga naan xale. ah kon ñun nga yéene mag mu màgget bu bañ dem mu jàll buural et puis di lax lax yooyu quoi ñun dañuy doye loolu ñun ñuy ay mag. añoo delle war ñoo noddante soixante ans cinquante ans ñuy wër xale bu ñu delloo suñu dix-huit ans nga naan ay bu mu na mujju tayaa dégg bu ma la ko waxat di sëy fay la borom wala doo sëy fal fay la borom hé di sëy wala doo sëy naa wax sama papa eh, eh, hé boo génnee wax ko kenn su boobaa xolal te yaakaar naa ne jigéen bu ne bëgg nga boo sëyee am ci njaboot njaboot ji barkeel màgg tekki ba mën laa jariñ man mii de sa borom kër boo ma xañee sa bopp nan la ñuy amee njaboot bët yu ñuy xool soppe yi noon yi naan de couple bii mënuñoo am bant ci ku góor ki la walla ci ko jigéen ki la ay lay win fekk na booba yow yaa ma xañ sa bopp

waaye nag li nga wax dëgg la jigéen dafa war a nangu góor loolu laaj soxna mukk boppam muy bañ bu boobaa da koy layoog suñu borom. Mhm. jigéen tamit su soxlawee jëkkëram mënul bañ parce que da koy layoog suñu borom. Mhm. comme mënumaa bañ te sañu ma bañ loo deful rek si yow la bàyyi naa nag suñu boroom nag. moom mi am fay fay na ma la boppam.

t'inquiète, ça va aller. Mon cœur, bàyyi sa mbalag yi ngay def c'est pas le sa deng-deng jàppuloo bàyyiwuloo mun na koo fee nelaw heure bi aca eh béeb mon cœur Delia Bébé Delia délia plus un délia égale deux délia j'écris deux un trois moins un égale deux délia quatre moins deux égale plus un sangomar ça fait